waxtaanee ci séminaire bi waaye annoncé woon nañ ko ay jamono ci gannaaw Yewwi Askan Wi coalition politique la bu dëgër coalition politique boo xam ne dañ ko lal ci ay ponk ay gors bokk ko waaye it ñu lal ko ci ay jubluwaay yu leer nañ yoo xam ne mooy objectif bu coalition bi coalition Yewwi Askan Wi mooy li gën a màndargal ni ki ñu faloon mu fàtte li ko fal ba jàpp ni moom dafa donn ba tax mu ne lépp luy opposition ci réew mi dina ko faagaagal te li gën a màndargal ni loolu lajj na mooy Yewwi Askan Wi ndax leer na ma ni tey fu mu toogoon ñu tegal ko boolu ceeb bu baax sax bu xelam demee ci yeewi askan wi rek boo moytul mu suur kon léeg-léeg spéculation yi am wala ñu binduloo ay nit naan yeewi askan wi léegi mu tas rivalité diggante Massamba ak ba yooyu ay manœuvre politique la waaye ñu dalal xelu sénégalais yi ni kóolute gi ñu am ci yeewi askan wi kóolute googu ñu ñii ñi muy sàmmanteeg moom parce que responsabilité la te non seulement fi mu nekkoon ma nga fa ba léegi waaye ni mu tuuti tuuti lu ëpp fukk ak juróom ci ay parti politique ak ay organisation déposé nañu seen candidature pour mun a ñëw yokk ci yeewi askan wi looloo tax nag ñu jàpp ni mënuñu rek ne fal nañu ay nit xeex nañu dem ci élection fexe ba ñu fal ay maire pare nañ ci maire bu nekk ñu bàyyi la ak sa bopp boo ko defee xam nañu réew mi ni muy doxee noggatu gu ñu ta yàgg di noggatu maire yi yenn ci maire yi bokk surtout ñu delloo si loolu wala lenn lu nit ñi di xalaat ni boo nekkee opposant nekk maire waroo mën a def dara ci sa yi moo wax ni loolu amul tey amul ëllëg au contraire man de yàlla def na ma meer waaye gis ma ci àdduna kuy dund di yi ngelaw yàlla gi te mën maa tere ma def résultat yu mag a mag a mag fee ci Sicoor incha allah parce que constitution ak loi dëkk bi dañoo jox ay atribution yu leer nañ mairie bi niñ ko joxee pouvoir central bi maire bu sàggan nag ba pouvoir central bi ñëw jalgati loolu joggati la yow yaa bëggul liggéey waaye pour bañ ñu fragiliser suñu maire yi moo tax nañu ne ñu ne nañ leen dajale ci kuréel ku bees goo xam ne bokkul ak association des maire du Sénégal bi ñu xam fii parce ñun dañoo am ay objectifs dafa am lu ñu bëgg ci mairie yi ñu dénk ak président conseil départementaux yi ñu dénk dafa am lañ ci bëgg ñu bëri ci ñun pour ne pas dire ñëpp sax dañoo ñëw àndaale programme bi ñuy ñëw loolu du lu ñu tàmm gis ci élection département wala commune waaye dañoo dañoo fenk ay programme ñëw présenter askanu ay programme am yéene nag ni programme yooyu bu soobee yàlla dañu koy appliquer ñu ne nag maire yooyu ak président conseil départemental yi soxla nañu ku leen jàppale ci encadrement ci formation parce que loo gis rek da koy jàng ndànk-ndànk ba keroog ngay mokkal moo tax ñu ne dañu ànd taxawal benn kuréel boo xam ni objectif am bu njëkk mooy suñu maire yooyu faluñu leen rek fàtte leen suñu président conseil départemental faluñu leen rek fàtte leen suñu 81 élus yi bëgg nañu ñu continuer am benn lien bu étroit ñoom ak conférence des leaders waaye ñoom ak coalition bi leen fal te loolu mi ngi jaar ci ñu am benn plateforme boo xam ne dinañ leen offrir ay formation bii benn rek la woon wala ubbite bi rek la woon mais régulièrement dinañ leen woowaat ci yeneen euh, thèmes yoo xam ne yuy tànn la jël ay nit yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu ñu ñëw former leen ci loolu parce que dañu bëgg suñu maires yi nekk les meilleurs maires du Sénégal dañu bëgg suñu président conseil départementaux yi nekk leen meilleurs du Sénégal également loolu loolu bokk na ci objectif bi ëpp solo wala ci benn ci ëpp solo ñu ne it war nañoo mutualiser mooy lépp lu ñuy jànkonteel ci jafe-jafe ci ni ñuy liggéeyee ci biir mairie yi kenn ku nekk waruñu ko bàyyi rek moom muy nekk ci jafe-jafeem ak administration déconcentrée nekk ci jafe-jafeem diggante moom ak ñi mu war a administrer waaye ku ci am jafe-jafe war nga am foo ko mën a àndee kenn ku ne indi xalaatam peut-être am na ku la ci ëpp gis-gis ñu jàppalante ci loolu ba wàññi problème yi gis ngeen ni maire yi léeg dañ leen jox ay cër waaye nguur gi pouvoir central foog na ni moom rek moo am cër bu mu jëlee ci constitution ba tax jàpp na ni war na mën a écraser les mairies te loolu day firndéew lu bëri bu ci gën a fës mooy léeg diggante maire yi ak les préfets wala les sous-préfets am na sax bu ñu ci signalé fii ci séminaire bi ab sous-préfet boo xam ne dinañ ko sutural pour le moment waaye xam naa ni bu déggee li may wax bu mu wooti suñu benn maire naan ko indil un million pour participation aux aux élections wala andil cinq cent mille pour participation au 4 avril loolu c'est lar l'arnaque détournement la mu ngi ñuy dégg bu ko déggee bu mu ko defati ndax bu ko defatee dinañ ko régler ak moom parce que loolu du cëram loolu de boo ko defee ak maire boo xam ne xamul lan mooy ay prérogatives kooku mun na paniquer dem jox ko un million waaye loolu amul cislaay amul fondement te warut kon cas mel noonu moo tax ñu ne dañuy taxawal suñu benn kuréel boo xam ne saa suñu bëgg a bu suñuy meer wala ñu bëgg leen jaay doole ki ko bëgg a def na xam ni du jàkkaarloo kese ak benn maire waaye Yewwi Askan Wi yépp lay jàkkaarlool leaders yi ba ci maire yi ba ci militants yi ba ci sympathisants yi ñun duñu ñu tooñ prérogative bu état duñ ko jalgati waaye duñu nangu état central aussi di jalgati suñuy prérogative yooyu yëpp nag moo tax ñu ne dañuy taxawal suñu kuréel tuddee ko réseau des élus locaux du Sénégal en acronyme mu doon réel Déthié Fall nag nee na ñun neewuñu ñeneen ñi ay foo lañu waaye ñun xam nañu ñun ay réel lañu réseau des élus locaux du Sénégal réseau boobu day dajale ñëpp nag yemuñu ci maire yi waaye dañ ko yaatal ba ci président conseil départementaux yi yemuñu ci Yewwi Askan Wi kese tamit maire bu jàpp ni par rapport ak say objectif ak li nga soxla ci xam-xam ak ci façon bi nga bëggee gérer sa mën nga koo am ci réseau des élus locaux du Sénégal xamal ni am nga fi sa place tëjuñu ko ci kenn rawatina nag les autres maires de l'opposition tëjaluñu ko kenn waaye dama ne même maire bu nekkul opposition boo